mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen euh, chaîne d'information leader Sénégal 7 TV di am mbégte di def déplacement seet si tey euh, Seydi Gassama Seydi Gassama nekk euh, directeur exécutif bu Amnesty International Sénégal Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu képp kuy seetaan Sénégal set di site boo xam ne ñëpp ñu ngi koy seetaan ci Sénégal ak ci diaspora bi di site boo xam ne vraiment mu ngi béy waaram. ci euh, avancé loo démocratie Sénégal avancé loo ak ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal ak promouvoir tamit développement Sénégal. alors très bien Seydi Gassama euh, comme ni ñu ko waxee euh, sànq dama bëgg ñu tàmbale ci li nga xamante ne jamono jii nii moom mooy moom la ñëpp di waxtaanee ci espace politique bi ak li nga xamante ne moom mooy espace publique bi mooy mbirum Ousmane sonk ak Adji Sarr bi doyen des juges jëlee ordonnance de renvoi. yóbbu mbir mi chambre criminelle ngir ñu mun ko àtte booba léegi nag coow li bëri na ci espace politique bi xiiroo ngaa yeeg tout ça ndax xalaatoo en tant que défenseur des droits humains ñu egg ci escalade boo xam ne mbir yi dina xaw a jafee régler. waa xam nga toujours euh, euh, dëkk bi je crois que ñu bëri ci biir dëkk bi lépp lu ñuy gis ci fitna ci télé lañ ko gis wala dégg ko ci rajo waaye mosuñu dem ci fi nga xam ne. ci dëkk yi nga xam ne am na fit fitna euh, dund luy na ñi bëri xamuñu luy loolu je crois que soo déggee nit ñi di wax euh, da nga xam ne tey euh, seen bakkan rek lañuy topp waa ñi bëri seetuñu ban danger la réew mi nar a jànkoonteel ndax affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ñu bëri seetuñu loolu li ñu seet rek mooy seen bakkan. maanaam euh, mbir mi politiquement ci ci wàllu politique euh, ban intérêt la mu mun a jural ci wàllu politique euh, ñiy wax ci rajo yi ñiy wax ci réseaux sociaux yi loolu rek ngay dëgg parce que soo seetee bu baax muy avocat Adji Sarr benn bokk yaakaar la bokk. maître El Hadj Diouf. El Hadj Diouf benn bokk yaakaar la bokk. am na beneen avocat boo xam ne bokkul ci benn bokk yaakaar waaye kooku doo ko dëgg doo ko dëgg sa muy wax. avocat bi nga xam ne moom moo gën a siiw nag ci plateau télé yi guddi ak bëccëg mooy ki nga xam dafa bokk benn bokk yaakaar euh, kon kooku mun nañu wax ne au delà défendre Adji Sarr am na intérêt politique ci mbir mi à part moom ñi feesal plateau yi tamit mooy militant wu parti au pouvoir ak coalition au pouvoir ñoom ñoo dem ci ci biir euh, ci biir télé yi ak rajo yi di wax ci affaire mi guddi ak bëccëg kon mbir mi kenn mënul wax ne politique raxu ci ah, politique mu ngi ci biir affaire bi. te loolu moo dangereux parce que ni ko pendam boo waxee pour la première fois euh, kooru jigéen n'est-ce pas dañ ko jël def ko affaire politique waaw te bi mu ko waxee dama rafetlu kàddu bi parce que pendam boobu ñu xam ñëpp xam nañu dafa jege tey nguur bi fi nekk surtout président première dame waaye nit ku dëggu la koo xam ne dara du tax ba du wax li nga xam ne moom mooy dëgg mooy intérêt Sénégal te képp koo xam ne tiituloo rek c'est parce que danga nga xamul fitna naka lay juddu waaw fitna lu tuuti rek moo yee fitna te fitna bés bu commencé n'est-ce pas mun na law. ndax ànd nga ñu dem ci procès boobu parce que bëri na ñuy wax ne euh, procès bi yëf yu daal dañ ko war a teg ci suuf war ñoo dem procès y compris même Ousmane Sonko bi nga xamante ne c'est le concerné donc déggoon nañ ko nag ci ay jamono muy wax ne moom yàkkamti na dem procès. te bu ñu demee procès yuuxu dina jëf fu ñu ko foogewul mais actuellement moom ci boppam boo déglu ay kàddoom ci euh, sorti yi mu mujjee def moom mooy bëggatul dem ci procès boobu bëri na également ñoo xam ne euh, procès boobu bu ñu sañoon ñu teg ko ci suuf ndax da nga bokk si ñooñ ñi nga xamante ne ñu jàpp ne yëf yi dañ ko war a teg ci suuf. xam nga mbirum dossier Sweet Beauté dara kumpaw ci Sénégalais yi lépp loo xam ne laal na ci dossier boobu sénégalais xam nañ ko. amul dara loo xam ne xew na ci cabinet juge d'instruction te sénégalais xamuñu ko amul dara loo xam ne xew na gendarmerie te sénégalais xamuñu ko kon affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko askan wi seen bopp ñëw ko àtte ba pare. est-ce que askan bi am nañ sañ-sañu àtte aussi. dégg lu ma wax la rek waxuma politiciens yi de askan wi ñoo xam ne bokkuñ ci politique ay ne maanaam ay citoyens lañu ñoom yëpp koo waxtaanal ci biir dëkk bi rek am na déjà. idéem bu leer naññ ci affaire bi ndax dara kumpawul Sénégal yi ci dossier bi ni ma ko waxee eh, enquête enquête enquête enquête préliminaire bi ci gendarmerie pièces yi lépp mu ngi ci place publique bi ci certificat médical waaw gay Gaye mi nga xam ne moom moo seet euh, euh, ndaw si moom lañu woo mu dugg oto dem jëli ko andi ko hôpital seet ko ma recevoir na ko fii soxlaw dugg ci dossier docteur Gaye wonu man nag certi wonu ma nag certificat de de médical wonu ma ko mais li ma dëgg ci moom ak li ma ci certificat médical bi nga xam ne mu ngi circuler te moom wax na ko ci médias yi n'est-ce pas mooy ndaw si keroog bi nga ko fay indi te ñu naan ko kaa jël nda te bi bi ñu ko waxee pour ñu jëli ko dañ ko newoon ñu ngi koy doog a violé moom mi nga xam ne gynécologue la fanweeri at ak dara gynécologue la képp koo xam ne am na genre histoire viol grand yu fi Parcelles ci moom lañ ko daan andi bi mu ko seete ba seet nee ndaw si sëy ak kenn ci diir boo xam ne kenn xamul benn fan la xamuma ñaar fan la xamuma ñetti fan la waaw certificat médical su léegi dafa doyatul pour prouver viol kon Sénégal fii tout le monde est en danger loolu mooy kenn ci ñun kenn ku nekk ci ñun benn xale bu jigéen mun na fi jóg ni diw daf ma violé gendarmerie ne ko demal wuti certificat médical mu ñëw certificat médical bi ne kii de amul viol ñu ne ah am na viol xam nga loolu lay andi loolu lay andi waaw maanaam su ñu écarté certificat médical ci dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ñeen nee nañu doyatul pour prouver que amul viol loolu mooy kenn ku nekk ci ñoon da nga nekk en danger. da nga da nga jàpp ne waruñoo dem procès sur la base du certificat médical bi nga dem enquête interne de la gendarmerie bi ak yeneen preuve yi nga xam ne teg nañ ko. certificat médical c'est la pièce principale dans tous les pays du monde réew boo mënutee dem ci àdduna bi certificat médical nest pas mooy principale pièce boo xam ne n'est-ce pas attakat bi mun na ci sukkandiku pour ne dañ ma violer. su dee ndaw si ne dañ ko sëy dañuy sëy ak moom maanaam ni ñuy définir viol maanaam pénétration xam nga viol ni ñu ko defee dama pénétration hmm? par force ou par surprise et cetera et cetera su dee certificat médical doyatul pour prouver que ndaw si dañuy sëy ak moom wala sëyuñu ak moom dama ne on est en danger man kenn ko nekk ñoon n'est-ce pas nit mun na la jiiñ euh, viol ñu dem loppitaal gynécologue bi ne kii violé ñu ko maanaam sëyul ci benn falo ñaar fan ñetti fan ñu ne déedéet doyul ba tey nit ki violé na nañ ko yóbbu àtte ko booba on est tous en képp ko xam ne fii ci Sénégal état bi bugg na bugg na la teg mbëggal rek mun nañ la jàpp dugal la ci biir kaso. très bien Seydi Gassama euh, comme ni. képp koo xam ne ci biir réew mi état bugg na la fexeel rek mu ne tuumal viol ñu tëj la ci biir kaso su dee affaire Ousmane Sonko Adji saar bi mujj na ci àtte bi ñu naan dañuy condamné Ousmane Sonko. mujj na ci àtte boobu laa bëgg ñu ñëw ngay nekk défenseur des droits humains euh, fekkee cas yu bëri cas de figure yu bëri que ce soit ici wala ci biir Afrique euh, fu ne nii comme def nañ li nga xamante ne moom mooy renvoi bi ci euh, c' est sûr et certain que dinañ dem ci enrôlement mais en cas ñu dem enrôler ko dossier boobu noonu Ousmane sonk bañ a dem déféré à la convocation lan nga jàpp ne moom moo war a mën a xew. écoute man damay <laughs> yaakaar ne. Euh, su dee man mënoon naa ko xelal naa ko ne demal. lu tax demal ci procès bi. pour lan parce que moom bugg na jiite réew mi bëgg na jiite réew mi waaw ku bugg a jiite réew nag da ngay poser acte yoo xam ne n'est-ce pas day wane ni que yow homme d'état nga même su dee nag yaakaar nga ne dañ la pare fexeel waaw. ndax da nga jàpp nag. mbir mi Sénégalais yi en tout cas képp ko xam ne bokkuloo APR ak benn Bokk Yaakaar am nga déjà idée bu leer ci li nga xam ne moom moo xew ci mbir mi. alors nan nga gisee également yeneen réaction yi nga xamante ne. su ma sañoon man naa ko xelal mu dem ci procès bi waaw te su ma mënoon waxtaan ak avocat bi naa naa leen wax. n'est-ce pas ñu xelal ko. beneen camp bi de façon ñoom ñu ngi ñu ngi demander sax un procès public boo xam ne dañ koy euh, til médiatiser. ko persuadé ko mu dem ci euh, mu dem ci ci bi waaw ñooñu xam nga ñooñu li ñuy wut du défendre Adji Sarr ñooñu li ñuy wut mooy yàq deru Sonko. ñoom Me El Hadji Diouf. Ah waaw ak ñi. Euh, façon ñoom nee nañ procès public lañ bëgg boo xam ne dañ koy diffuse en ci télévision yi. loolu fan la mos a amee procès Hissène Habré mi nga xam ne ñu ngi ko doon topp pour génocide. juris sam nga mooy mooy lan nekkoon avocat Hissène Habré balaa Hissène Habré di koy dàq xam nga Hissène daf ko mujjee dàq nekkoon avocat am xam nga seen si mooy lan mooy nga rey ay junni junni junni doomi aadama aadama torturer ay junni junni doomu aadama malgré ça procès bi nekkul procès public. est-ce qu'il n'est pas dans son rôle en tant qu'avocat maître El Hadj Diouf parce que gis nañu à chaque fois bu génnee day gën a noyyi Ousmane Sonko def ay attaques yoo xam ne parfois gars yi seen xel day xaw a jaxas. li liggéeyam liggéey avocat lay def man waxu El Hadj Diouf moom toppatoo ma ko liggéey avocat lay def waaw liggéey avocat lay def mun na def il peut faire son show et loolu man intéressé ma maa li ma wax mooy lan moo war a tax bi ñu def procès bu nekk procès public ak kan moo war a décider que war na nekk procès su dee parce que musul am fii ci biir Sénégal musu fi am. <laughs> mais bëri na aussi ñuy euh, ñuy ñuy laaj pour ñu dem ci procès xëy na ci emballement boobu lañ nekk. waaw dama ne procès yi am nit ñi chaque matin ku nga xam ne am nga jot mun nga yeewu dem tribunal dem toog déglu procès bi wala ñu ko diffusé ci rajo yi ak télé yi eh, ñi wax loolu yëpp mooy ñi nga xam ne euh, évidemment Euh, c'est des politiciens li ñu ci jublu mooy fexe ba même su dee tëjuñu Ousmane Sonko nañ yàq dara. ndax jàpp nga ne lii mën na yàqal Ousmane Sonko ci candidature boobu nga xam ne déclaré na ko ngir dem ci élection présidentielle bu 2024 ndax am na lu mu ci mën a yàq procès bi nga xamante ne dëgg nañ mañ ko euh, digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Adji saar ñu ngi xaar pour seet procès bi su amee ban dogal la justice di ciy def loolu lañu xaar waaw waaye li nga xam gis nañu ko ba léegi. li ñu jot xam ci dossier bi ah, certificat médical bi nga xam ne mu ngi ci place publique ak li ma dëgg ci docteur Gaye su dee malgré loolu yëpp ak li ñuy dëgg tamit ci audio yi xam nga bu ñu jàpp Sénégalais Sénégalais du ñu ay xale. politiciens yi dañuy defe ne suñu yeewu la matin dem ci réseau sociaux yi nekk ci rajo ak télé yi n'est-ce pas mun nañ jël fen def ko mu nekk dëgg. xale bu ndaw dafa nekk dafa ak sëriñ wax ko lu nekk mu ne exactement man mii la man maa doon wax ak sama sëriñ waaye dama ko doon nax rek di seet est-ce que ma sëriñ bi dafa sincère wala sincère wul ñu bëgg ñu gëmloo loolu nañu bay caaxaan dëkk bii du ay xale ñoo fi nekk waaw ay du xale ñoo fi nekk ay mag ñoo fi nekk am ay am xel waaw doo fi dem wax sa waa ak sa sëriñ. ñu laaj la nga ni effectivement man la sama baat la dépend nga ne waaw sëriñ bi dama ko doon nax rek di seet est-ce que dafa sincère wala sincère wul nga bëgg Sénégal yi gëm loolu je crois que nañu dalal suñu xel ñu bañ a topp suñu bëgg-bëgg bañ a topp suñu passion parce que passion boobu lu mu mën a jur ëllëg kenn xamu ko déjà mars 2021 fukk doomu Sénégal ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan kon li nar ñëw ci kanam kenn xamul lu mu jur ci ay musiba. alors ci tiitaan fan ak ñeent ci dëkk bi nga xam ne ay 17 millions rek la en quelque jours ci ay fan rek fukki fan fukki doomu senegal ak ñeent de loolu waroon na tax nest ci biir dëkk bi ku nekk nga tiit ku nekk nga tiit waaye li ñu gis mooy malgré lépp loo xam ne dëgg nañu ko. malgré certificat médical bi ak leneen ak leneen état Sénégal ndax parquet soo déggee parquet procureur kan mooy kilifam mooy ministre de la justice mooy kilifam ministre de moo fi publiquement que su dee dossier ci biir su dee dossier war na taal réew mi moom daf ci teg daf ci teg loxoom du bay mukk dossier boo xam ne. mun na taal réew mi ñu ko yóbbu di koy saytu ba muy egg foo xam ne war na fa egg waaye dossier boo xam ne nag certificat médical nee na viol amul yéen nga ne kurtu ku dossier bi foog ñu atte ko loolu mooy wane ne ñoom seen objectif mooy dem ci condamnation. seen objectif mooy dem ci condamnation. ci ci tiitaan. fexe ba kii bañ a présenté ci élection loolu mu ngi fàttali li nga xam ne moo doon xew ci année 60 ak année 90 ci réew yu mel ni Union soviétique ak ci ay suñu la buggee fexeel n'est-ce pas état day rassembler lépp loo xam ne puissance publique la pour fexeel la jàpp la tuumal la atte la rey la wala bokk dugg la ci biir kaso nga nekk fa at at at at nest pas bébé su leen neex ñu bàyyi la maanaam situation boobu lañu ñu bëgg a delluwaat ci biir Sénégal te loolu société civile war ñu ko nangu te citoyen sénégalais war ñu ko nangu war ñu ko nangu. dafa jot nag pour képp ko xam ne am nga kàddu ci biir réew mi pour nga wax ci nga wax ci parce que nag Alioune Tine waxoon na fi. foofu laa doon ñëw parce que moom ci boppam ci terme yu mu utilisé mooy si si on n'y prend pas garde mën nañ dem ci guerre civile est-ce que aussi mooy foor ñu trop par rapport ak euh, contexte bi ñu nekk nii. damay wax ne ñun bees bu nekk damay préciser d'abord que ñun bés bu nekk ñu ngi fi recevoir ay jigéen yoo xam ne n'est-ce pas dañu jànkonteel ak problème viol voilà yeneen problème violence démb rek am na xale bu jigéen boo xam ne daanaka fi ñu ko yoroon dañ ko yoroon foofu comme jaam muy liggéey ñu jël xaalis bi da koy fay keneen waa juróom xamul n'est-ce pas euh, euh, magam yi ak rakkam yi xamuñu bi muy dawee ñëw si ñun fexe nañu ba xale bu jigéen boobu ñu bu ci police police woo ay mbokkam n'est-ce pas tey dañ ko delloo ay mbokkam viol tamit am na cas yu bëri ay xale yoo xam ne dañ leen violé bi ñoo ci ñun wutal nañu leen avocat avocat yi défendre leen kon ñun guddi ak bëccëg ñu ngi liggéey pour aar jigéen ñi protéger jigéen ñi ci affaire viol waaye viol bi lu mun a jur accusation de viol bi lu mun a jur Sénégal musiba rek la mun a doon. mais dégg sama ci lu mu wax Alioune Tine xam na lu muy wax Alioune Tine depuis 1989. lépp fanweeri at ak juróom mu ngi ci mbirum defar fay safara fi fam safara takk tàkk na fa te fe ci Afrique Afrique de l'Ouest Afrique sowu jant ak Afrique centrale fépp xam ne safara takk na fa Alioune Tine dem na fa pour jëm ko fay. expression bi nekkul lu fort guerre civile ci réew mu mel ni Sénégal ak. Euh, kenn xamul guerre civile fu muy commencé ak li koy li koy taal kenn xamu ko xoolal Côte d'Ivoire. kan moo mënul toog xalaat ne Côte d'Ivoire benn jour ñu egg foo xam ne dina am guerre civile. point de non retour. de non retour Houphouët-Boigny kan moo taxoon Houphouët-Boigny jàngale jàmm ak ñu war a dox jàmm moo ne woon n'est-ce pas jàmm du du du ay kàddu rek comportement la n'est-ce pas kenn mënul toog xalaat ne Côte d'Ivoire un jour dinañu dem be egg ci guerre civile lan moo ko andi ay politiciens xeex rek. pour mun a jot nguur ak ci mun a téye nguur bañ ko bañ ba bañ ko jox keneen moo ànd guerre civile ci Côte d'Ivoire ak ñeneen réew réew bu mel ni Congo RDC ñooñu li ñu la xamal mooy fecc woy ak fecc def feet xoolal bi mu commencé ba léegi kenn mënu ko fay kon xëy na sénégalais yi moo boobu dañu considéré que moo la boo xam ne moo bu moo moo bu bu diis la parce que waaye. moo bu rëy la moo bu diis la waaye ku bëgg alerte ku bëgg alerte alerter yenn saa yi di nga utiliser ay mots yoo xam ne dina tax ku nekk dina tiit ne ah kii moo bu waa bu mu wax rëy na waaye est-ce que est-ce que lu mu wax mënul nekk su ko defee kenn ku nekk ñun di nga dellu sa xel di nga dellu sa xel kon je pense que Alioune Tine mu te. bépp dëkk boo xam ne ñu mel ni Alioune Tine alerte alerté ñu leen déglul ëllëg musiba rek moo fay am. bokk na ci liñ leen di euh, liñ leen di taxé muy Alioune Tine muy yow lee défenseurs des droits humains comme di ngeen xaw a jéng ci euh, ni ngeen di defee seen intervention ku gis seen tweet ak tout ça vous êtes un peu propre opposition lan ngeen di euh, leeral ci loolu ban leeral ngeen mën a indi ci lool xam nga loolu ay waxu kasaw kasaw la ay waxu caaxaan ay caaxankat lañu dañ nekk tey ci biir pouvoir. kenn ki nekk ci ñoom xam na fan mooy bureau amnistie kenn ki nekk ci ñoom xam nañu fan mooy bureau rado waaw bi ñu nekkee opposition kenn ku kenn ku nekk ci ñoom xam na fan mooy bureau organisation des droits de l'homme ñun du ñu ay neutre de dëgg bi fu mu nekk fan fu lañ koy waxee du ñu ay neutre gis ci àdduna bi benn kuréel rek moo fi nekk neutre mooy croix rouge ñoom ñu nekk neutre à ñoom amul neutre. dañu impartial nag impartial mooy doo far fenn waaye dëgg bi fu mu nekk da koy wax waaw dëgg bi fu mu nekk mooy. su moom dëgg ji jamono ji ci opposition bi la féete. ñu dafay rapport bor ñu dafay rapport di tuubal ay gouvernement suñu ne ko def loolu kon dégg bi fu mu nekk foofu lañ koy waxee moo dañu observer ay procès di xool est que procès bi jaar na yoon wala jaarul yoon ñu ci siiwal ay rapport kon nañu bàyyi caaxaan xam nga lan mooy seen stratégie nekk fi di leen tuumal ne danga faral opposition pour que nga mun a noppi bàyyi leen ñoom ñu déroulé ay waxu ñàkk fayda la ay waxu kasaw kasaw la parce que une fois ah lan moo xew charte réew moom moo ne par exemple opposition am na droit képp ko am Sénégal li nga rek ngay parti politique ngay association ngeen ay citoyen am ngeen droit dox ñaxtu su dee da ngeen am li leen naxari chancellerie yi moo ko wax te ñoom ñu dem ratifier ay traité signé ko comprendre nga opposition ci buggee manifester ñu tere leen manifester nga ne déedéet waroo leen tere ñu manifester ñu ne ah ñu ngi ànd ak opposition waaw parti politique parti politique du chancellerie moo ko jox sañ-sañ pour mu manifester yow nga woo préfet ne ko bu leen may ñu manifester. parce que da nga bañ ñu wane seen doole ci manifestation bi n'est-ce pas société bi ne ah respecté leen seen engagement bàyyi leen ñu manifester ñu ne ah kii di société parti opposition la faral hmm? xam nga loolu weesuwul li tubaab yi di wax mauvaise foi waaw maanaam li ñuy wax sa gëmuñu ko ñoom li ñuy wax gëmuñu ko mais ñu ngi koy wax rek pour jéem a teg ci ñun pression pour que ñu noppi ñu bàyyi lañ ñu dérouler def seen affaire yu yu dëng yi su ñu defee seen yu dëng yi nga bañ ci wax parce que da ngay da ngay soo waxee ñu boole la ci opposition waaye ñun dofuñu ñun sénégalais lañ fi nekk waaw ñoom ñoo ñooy nekk tey ci biir nguur gi ñu nekk ñoom ñu nekk tey ci biir nguur gi bés bu ñu nekk ci opposition ku bëgg a dal seen kaw ñu wax waaw dama ñu benn exemple rek. terme policier encagoulé policier encagoulé xam nga kan moo ko njëkkee génne fii. kan la kan la. Abdoulaye moo njëkk waxi policier encagoulé waaye ñu tegee loxo ci doomam nest di ko atte ci tribunal boo xam ne tribunal bu doy waar la mais ñun ñoo fi njëkk yëkkati suñu baat ñaawlu ko dem seeti doomam ba ci biir kaso rek on forte ko man def na ko Alioune Tine def na ko ak lu mu xeexal xeexoon contre Abdoulaye Wade yépp dem na seeti doomam man noonu. tooguñu ñu ñu ne waaw xëy na dëmb moo la papa moo ñu doon wax ne ay policiers ak encagoulé lañu du ñu défendre doomam kon ñun képp koo xam ne état parce que état dafa am doole te dañu mën a def yu sew sewaan waaw képp ko xam ne yor nga puissance publique bu ko utiliser. pour néewal doole citoyen wala opposant dañ yëkkat suñu baat wax ci ci kaw nag